amoon nga yaakaar à moment doon nga ñëwati euh, sélection <laughs> waaw amoon si yaakaar bu baax nag fu jiib rëy amoon si def ma si woon sama bopp à 100 pour cent mais dans un coin de ma tête amoon naa si amoon naa si yaakaar. après comme comme on dit lu jot rek dafay yomb quoi. Mhm. lu jot day yomb tey li li nga war a am ëllëg mënoo ko mënoo ko tànk borom bi dogalu ko. et moment bi muy am voilà nekk na tombé na moment ba nga xamante Sénégal ñëpp ko bëggoon. Mm-hmm. ñëpp ko xam nga loolu kon tey day yomb nekkul yow yaa nekk génnaan dañ ma war a woo. Mm-hmm. wala sa mbokk moo génnaan dañ ma war a woo. Mm-hmm. c'était le Sénégal qui qui demandait kon loolu yàlla moo ko dogal yàlla moo dogal mu am xam nga mënoon na nekk bi may am 22 ans. bi may am 23 bi may am 25 ans. mais daal moom am 28 ans. ñu loolu loolu soog a am. mais d'ailleurs je je pense que au début de ta de votre carrière à Diamba. Euh, <coughs> amoon na moment Sénégal mm. équipe Sénégal doon joué jàmbaar mu amoon ay manquant nga ñëw. Euh, remplacer boobu boo xeeñoon na tëddi quoi. <laughs> <laughs> après il a fallu encore patienter. il y a eu ce match vraiment. très intéressant contre la Bolivie. Je me souviens même qu'après, vous aviez fait un papier sur, sur cette prestation. Peut-être le pendant le moins positif, c'est contre l'Angleterre. Angleterre nekkoon na match bu difficile pour le milieu de terrain en général yow en particulier léegi mm. nag moment yooyu noonu est-ce que dina nekk ci bopp bi surtout quand on se fait éliminer 3-0 contre euh, en en huitième de finale de coupe du monde. Angleterre voilà c'était pas. Angleterre il fait partie des des trois meilleures équipes au au monde compétition bu mu mën ci bokk euro européenne bi soit coupe d'Europe wala coupe du monde day yegg ba demi-finale. kon tey bokk na si meilleure si meilleure équipe yi c' était pas n' importe quelle quelle équipe. en plus voilà ngay joué équipe boo xamante ni c' comme Angleterre ñu ak joueur de qualité yu ñu ñu am. côté boo def faay rek xam nga da nga koy da nga koy paye cher mhm. da tey ñun mas boobu noonu def nañ ci ay erreur yoo xamante ni. jàng nañ ci. Mhm. dañ cee jàng bu baax a baax a baax boo xoolee tey match bi ñu joué contre Brésil di xam ni que jàng nañ bu baax a baax ci ah, match contre contre Angleterre bi tey bu fekkoon suba la nekkul même match ngay ah, gis non beneen match ngay gis maa ngi dégg Kalidou Koulibaly di ko wax naan contre Angleterre match boobu on l'a pas joué au bon moment maanaam coupe du monde bi ci boppam sax <coughs> parce que équipe bi en <coughs> fait ñu ci bëri dañ nekkul woon vraiment au top de leur niveau dégg naa mu def def def réflexion boobu. et l'absence de Sadio Mané aussi. donc loolu tamit dafa impacté ci ci ci moralu équipe bi confiance u équipe bi même de tout le monde. Mm. la Fédé le peuple sénégalais dans son ensemble ñun ñëpp bi ñu nee Sadio bokkutul ku nekk am na loo wàññi. Mm. parce que atout offensif. wala li nga tax defence bële du ñeme génn. du ñeme def yenn yi di jël yenn risques yi. Mm. mais bu fa Sadio Mané nekkutulee dafa naan mais saa fii. damay dem. donc euh, après maintenant ak ñi dul woon jouer. Mhm. donc on a commencé par lui hein, et euh, dernier moment il n'y croyait pas. <laughs> Sadio day bokk. waaw man de dama ko mës a gëm. léegi ñun amuñu ci yaakaar de. ah mooy man de man de ba. non yéen yéen xamoon ngeen du yàgg ni du football. ah waaye mais après leneen xamu nañ ko bu yàgg. yéen yéen a njëkk informé yéen a njëkk informé. mais ba tey yaakaaroon naa waaw Sénégal ñoo préparé wul woon ci. absence su non du tout fit forfait non kooku nit ñi dee nañ <laughs> yàgg mais Pathé ce match bi contre euh, Brésil dañu gis ngeen nga changer un peu position xam nga ni nga wax d'habitude tu es en numéro mais là on a vu justement avec euh, euh, ce match que voilà c'est Nampalis qui était en 6 yow ak Pape Gueye yéen a nekkoon plus ou moins les les milieux rek. qui a joué en 10 donc am des comment tu t'es senti sur ce match et vraiment qu'est-ce qui a expliqué cette belle performance du Sénégal. après voilà match bi genre match yi la yoo xamante ni joueurs yi si àdduna yëpp dañuy rêvé joué ko match la boo xamante ni da lay da lay yokk motivation. parce que match la boo xamante ni voilà. mën naa ni àdduna bi ñëpp a koy seetaan. Mhm. te voilà nekk na match yoo xam ne yow da bëgg jouer wane ci sa ci sa bopp. voilà et nekk na match boo xamante ni préparé wuñ ko kii benn jour lañ ko préparé mooy veille bi. Mhm. veille bi la Aliou Cissé ñëw nii la bëgg ñu jouer li mu wax loolu la ñuy respecté noonu la ñu ñu am ñu am résultat bi nii nii. après man position bi ma joué xawoon na ma xawoon na ma na ma na ma bett tuuti vrai pour dire vrai mm. xawoon na ma si mise en place bi ma gisee mu teg j'étais un peu surpris mm. mais après je me suis dit pourquoi pas mun jouer de façon c'est le genre de match où tu vas pas dire non je préfère le numéro 6 tata donc euh, <laughs> mais a souvent eu un jeu à trois yow Sabali ak Ismaïla Sarr souvent vous avez posé des problèmes est-ce que c'était prévu que vous jouez de cette façon-là ou c'est parce que toi, tu aimes bien te projeter, tu aimes bien toucher au ballon, et donc Ismail Assar et Sabali aidant. Donc ça vous a permis de, de, de, de faire ce match-là. waaw loolu léegi kii travail woon nañ ko si si bi nekkoon na ay mouvement yoo xamante ni travail woon nañ mais nekkul match dina toll foo xamante ni boo amee un xam ne un contre ku nekk devant lui mun na ko mun na ko mmh, éliminer te am na ay action yoo xamante ne man dinaa mën a def bi sax pour mais pour baax moom mu jouer un contre parce que xam nañ ni que mën na ko mën na ko réussir de l'autre côté Sadio Mané c'était pareil mais dina toll moment yoo xamante ni boo xoolee sa positionnement di nga xam espace muy latéral bi muy défenseur bi muy milieu terrain kenn du si mën a mën a fekk si. ku man plusieurs fois moment yooyu laa doon tu t'es retrouvé souvent chaque fois. muy yow muy Sabali muy Ismaïla Sarr à tout moment yéen ñaar yéen ñett ñëpp ku nekk doon nga nekk foofu. Mhm. Mhm. ci zone boobu. donc vous avez été vraiment dangereux ci périmètre boobu. souvent kii nañ ko dañ ko dañ ko travaillé. li ñu ngay ah, en plus comme coach bi il avait dit que chacun respecte sa zone. Mm. ku nekk day respecté zone am. Mm. tey loolu la ñu cinq cinq zones ci bi ku nekk da ko da ko taxee entre deux joueurs rek. Mm-hmm. ñoom tey dañuy am problème kii day nekk maa koy jël wala kenn man maa koy jël si tu es bien positionné. Mm-hmm. bu ñu passé kii ki la war a. ci intervalle bu waree dem aussi un impact physique assez <coughs> période les les brésiliens étaient étouffés mënatuñu woon sax génne bal bi à la limite quoi foofu noonu c'est quoi c'est la fraîcheur c'est l'envie parce que on est en fin de saison quand même vous avez quand même débauché beaucoup beaucoup d'énergie sur cette sur cette partie je trouve en tout cas. oui mais après genre match yi nii pour man nii nga ko mën a mën a parce que Brésil équipe la boo xamante ni soo ko laissé mu nekk à l'aise mm. bal bi tac tac tac ah, dañ lay humilier ah, boo xoolee dix premières minutes ah, xam nañu xam nañu sonal bu baax après voilà ce qu'on ce qu'on avait prévu c'était man maay def pression bi si si Marquinhos mm-hmm. après boo gisee dix premières minutes yi tout le temps Sabali il se retrouvait avec deux moo Ismaïla Sarr il se retrouvait avec trois latéral bi Paqueta ak euh, Vinicius. Mm-hmm. et après Aliou bi mu xoolee après benn instant daf ma woo ne ma léegi bul génne ci Marquinhos bàyyi ko foofu noonu. Mm-hmm. yow léegi taxawal ak Paqueta bu ñu joué ak Vinicius ngeen mun ko prendre à deux wala ngeen nekk à trois foofu noonu ñu def un contre un bi. après dix premières minutes bu ñu dugalee si si leen loolu noonu ñu def impact physique boo xam nañ ni loolu leen arrangé ñoom. Mm-hmm. après bu ñu mi yi ñun dans les vestiaires on s'était ko ñoom. pare woon nañ ci match bi ils étaient ils ah, voilà après dañoo ñëw deuxième mi si rythme vingt minutes boobu noonu dañ continuer rek mm-hmm. est-ce que à 28 ans on peut encore progresser parce que comme je dis moi quand je vois jouer je vois voilà il y grosse prise Mais je trouve qu'en fait, Pâté, parfois, souvent, il pêche aussi dans la passe, cette passe qui doit faire la différence. Est-ce qu'à 28 ans, vous pensez que Yaoubelé doit progresser s'il y a un axe, axe de jeu waaw football yi moom chaque chaque amul amul pour man amul âge boo warul jàng. Hmm. chaque fois yaa ngi toog di si daan football rek di am loo xamante ne yow di ko di ko jàng. ak comme insister ci loolu. ñuy seetaan football ñi bëgg a football léegi nii. Hmm. dañuy seetaan. football pour mën a progresser. parce que léegi. koo ci wax dafa ne ne mën na lu ne ba du sax jar muy seetaan football football da nga koy seetaan boo koy pratiquer mm-hmm. pour mën a xool ñi koy ñu mag ñi nga mën a roy ci ñoom mm-hmm. et c'est xoolee football bi léegi nekkatul mën nga footballee da ngay dugg football mm-hmm. non non gars yi dañ koy jàngale de dañ koy jàngale parce que da ngay ñëw coach bi ne lii laa bëgg nga defaral ma voilà lii laa bëgg nga defaral ma tey da ngay xool tey boo téye bi attaquant bi nekk fële mu nekk entre deux yow boo xamul timing ban timing nga koy defal passe bi. Mhm. day nekk hors jeu wala bi lii sa. sa sa passe. daal di nga téye nga ne fii laa bëgg a joué. défenseur bi gis nañu fa nga bëgg a joué yow dans ta war a positionné de telle sorte que sa tànk boo ko defee nii boo joué fii day dem. Mhm. boo tëjee day dem. Mhm. ay ay naxante la rek yow défenseur bi da ngeen di da ngeen te loolu boo ko jàngul tey gëmu yi di nga ko. te décision boobu fraction de seconde nga koy jël. parce que sinon dañuy couper sa passe. sa sa sa tànk nu nga ko bëgg a def voilà. voilà une dernière question peut-être. ki euh, ngay dugg ci équipe nationale dafa tombé que sa frère bi génn. Euh,